ñoo ngi leen di joxe xikma bi fii ci institut Hikmatul Yawmi pour l'éducation et l'enseignement islamique centre Cheikh Mouhamadul Mourtada Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala 77 712 44 71 ci ñu bëgg bind seeni doom wala ñu bëgg ay leeral ci daara ji ndax tàmbali na. tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul mu aju ci njàngale moomee nga xam ne nii mosu saa jóg di ko jàngal euh, taalibe ya te lépp jëm ci luy yokk pas-pas luy yokk tawxiid ak luy tax euh, jullit bi bàyyi xel dundug ëllëg euh, te waajale ko dundug tey. Ah, sëriñ Touba xaadim rasul dafa masa woote ba ñu bari wuy si ba ñëwee mu tombal leen juróomi tomb ne leen ñëw leen ma yee leen ne leen nit kat bu faatoo dañ koy xaaj juróomi cër ku ne jël wàllam daal ne suñu borom tabaaraka wa taala nag moo njëkk jël wàllam dal ne ana juróomi cër yi ñu koy xaaj daal di jël loxoom bu tedd ba teg ci tomb bu njëkk ba daal ne ruux ruuxam ak yàpp yaramam ak yaxam ak alalam ak jëfam daal na suñu borom moo njëkk jël wàllam muy rooge ndax roo moom ku ne xam ne ne mbirum suñu borom la wax na ko ci alquran ne ko yow yonent bi kat gaa ñi dana la laaj mbirum ruu nee leen rek mbirum yàlla la yasalunaka an ruuhi qul ruuhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa xalila nee na kon suñu borom moo njëkk jël ak ruuxam moom daal di yóbbu daal di jël yàpp yaramu waa ji jox jox sax yi daldi jël yax ya jox ko suuf jël alal jam fa bàyyi jox ko ña ko doonoon ne bu leen ko ci sant kat maa leen ko jox daal di jël jëfi waa ji jox waa ji kon waa ji amu ci lenn lenn lenn ci juróomi cër yooyu lu ay jëfam moo tax ay jëf lu mat a sellal la te suñu borom nee na jëf leen rek loo def ci lu baax maa ngi koy gis te danaa leen ko dencal da ngeen ko fa fekk wa ma tafaalu min xayrin yaxlamuhullah lu waxaat ne lépp lu ngeen dawal ci aw yiw na ci seen xel dal du jaawaloo du réer dangeen ko fa fekk wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah kon nag képp koo xam ne nii kat xam nga lii dara waru la lurut di dawal fa nga jëm moo tax sëñ bay jaxate wax wax yu am solo nee na damaa dem fi ay sëg ma gis képp nit ne cundum ci bàmmeelam ak ay jëfam dama dem fi ay sëg ma gis képp nit ne cundum ci bàmmeelam ak ay jëfam ma xam nag ne koo xam ne léegi mu jëm bu yeewoo dafay teel a jëm ci mbiram jógal jëm ci say mbir te bul toppandoo ñi booleeg tayeel ak gëmbeen ak gëlëm lu nit fob di yóbbaale bàmmeel koy fajal lor lu dul loola fajtil lorom te ak jur aku nit ku dee doo ko fob di yóbbaale faggul ci sa jur ngëram te mboolem lu nit saytu yàllaa ko fab abal ko te buy dee mu nangu yëfam liggéeyal ci say yëf te wut ci njariñ lu jar dem ba say yëf te laq ko ci ndam ku xam dëgg loo am balaa jee nga am ca loole lu dul nammatee ja ndaxam xarit lépp loo saytu jaamoo ko yow ku def nii bu bis baa mu bég ciy jëfam kon nag lépp lu ñu yàlla jox nañ ko ko delloo nañ ko ko jaamoo yàlla def ko ci lu baax Euh, ñoo ngi santaat mbokki jullit ak mbokki taalibe bi bu baax ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul mi te lépp jëm ci rek lu ñuy dawal ëllëg ngir ñu fekk ko ci sunuy bàmmeel ak ñu fekk ko ci barzaq fekk ko tamit jannatul si te mooy lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ci ndigalul al Cheikh Mouhamadul Muntaxa afisahullahu wa raa di waxaat nag mboolem waa daara Hikmatul mi rawatina ñi bokk ci association bi te am carte membre kenn ku nekk na feeñuwaat joxewaat numéro am ñu dugal la ci numéro 5 bi ndax booba dañ ko beral waa association bi rek ñu nga xam ne nii am nañ carte te weer wu dee ñu barkeeloo dara loo xam ne nii dafa jëm ci daara ji daara ji it ñi ngi ci li ñuy ñaan moom mooy ñu weesu ko ba def yeneen i daara yeneen daara ba mu daj Sénégal ba daj àdduna loolu mooy suñu yitte mooy suñu yéene ngir liggéeyalee ko Serigne Touba liggéeyalee ko lislaam liggéeyalee ko itam jullit ñi ndax bu ëllëgee yowmal xiyaam ka Serigne Touba nee na ña daan liggéeyal jullit ñi lu njàq lu njàqare ga tartar ñoom duñ ci bokk ndax suñu borom dana yónni ku leen woo ba ñu wuyu ñu ne leen ñëw leen tàbbi àjjana ci lu gaaw te kenn du leen xisaab kon nag loolu rek lañ ci jublu ndax xam nañ ne àdduna luy jeex la te lu gaaw la te luy romb la moo tax euh, ñu ñu ñu ñu yéene suñu bopp ñu yéene ñëpp li ñu yéene suñu bopp loolu moo ko waral euh, kon nag